bi ni démb ak député yi nga xam ne ñoo bokk ci ku jégeeg noonu eskiri gi ñoom ñëpp dañoo daal di boycotté li nga xamante ni mooy séance plénière bi ndax ñoom jàpp nañ ne mbir mi dañu koo jalgati la nga xam ne moom la ñuy tuumaal Moustapha Niass maanaam lu jëm ci wàllum dictature ak wàllum njuuj njaaj ci lu jëm ci wàllum këyit faux usage de faux ndax nag ñi nga xam ne ñooy kujje gi député yi ñoom nee nañu ana nan la procureur mën a nag bindee ab document bind ci contre x contre x Moustapha Niass jekk-jekk ne contre x boobee amul maanaam Ousmane Sonko la ñu bind jaaxal député yi Cheikh Bamba Dièye ci biir yéenekaay gi nee na mbir mi sax dafa jaaxal gaay bare bare ana nan lay x rocceekoo nekk Ousmane Sonko te ki nga xam mooy procureur maanaam dossier bi nga xam moom la jébal Moustapha Niasse maanaam x moo sa nekk kon lan moo tax Moustapha Niasse bëgg a jël x def ko Ousmane Sonko loolee moo tax député yi maanaam lànk ba tëdd sa naaj wa démb defante ba mel ni ne male yéenekaay gi gi nee na ki boobee nga xam ne sala bokkoon daan na say ndax nee na Moustapha Niass ab dictateur la Mously Diakhaté bokk ci député yi nga xam ne ñoo bokk ci benn bokk yaakaar moom nag nee na opposition bi lii nga xam ne moom la ñu def assemblée nationale maanaam yëfu xale rek la yéen a kaay gii de Les Échos nee na commission ad hoc boobee nag ay bés bi nga xamante ni maanaam moom la ñu dëgmal maanaam semaine bi ñu dëgmal daal la commission ad hoc boobee danañu woolu Ousmane Sonko ngir nag daal di koy déglu yéen a kaay gii di réew mi quotidien nee na ay miiru ñi nga mi xamante ni moo jiite groupe parlementaire benn bokk yaakaar niki assemblée nationale dafa jekk-jekk rek daanu malaise gars yi jël ko yóbbu ko hôpital ñi nga xam ne ñooy waa dikk ñoom jamono ji ñoo ngi wër Birame Souleye Diop mi nga xam ne mooy administrateur parti bii di Pastef yéen a kaay gii di la témoin nee na ëllëg avenir u candidat anti système bii di Ousmane Sonko ma ngi ci loxol système bi yéen a kaay gii di Walf Fadjri nee na lu jëm ci mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñi nga xam ne ñooy waa section de recherche maanaam gendarmerie Colobane ñoom lañ dénkoon liggéey bi te ñenn ñi nag jàpp nañ ne waa gendarmerie daal def nañ seen liggéey waaye nag bis yii di ñëw bis yii di ci ay changement ay coppite am ci section de recherche bu Colobane maanaam bu leen bett yéen a kaay gi di réew mi quotidien ak le soleil ak Dakar Times wax na ni ki démb lu toll si ñaari téeméeri junni ci ay vaccin ñëw na ci réew mi njiitu réew mi di président Macky Sall moo ko dalal ba pare nag dalal xelu askanu Sénégal Macky Sall nee na dalal leen seen xel am leen njort bu rafet ci li nga xam ne mooy vaccin yi bàyyi leen wax ju sew ji vaccin yi baax na moom njiitu réew mi di président Macky Sall nee na nag yàggatul dara ay bés yi nga xam ne moom la ñu dëg ma lu jege juróom ci ay millions ci ay vaccin dina ñëw ci réew mi yéen kaay gii di Vox Populi ñu xëy fekk fa professeur Tandakha Dièye moom mi nga xamante ni spécialiste la xelam màcc ci jëm ci wàllu vaccin nee na vaccin yi nga xam ne moom lañ andi ci Sénégal efficacité bi téeméer boo jël juróom-ñaar fukk la ak juróom-ñeent maanaam 79 pour cent efficacité yéen kaay gii di Les Échos njiitu réew mi di président Macky Sall moom woo na askanu Sénégal ngir ñu yombalal ko mbir yi yéen kaay gii di La nee na mbir en tout cas yomb ci njiitu réew mi di président Macky Sall ndax am na beneen front boo xamante ni na Sène ma nga sa Dame Mbodj ma nga sa Karim Xurum Xax ma nga sa ak ñeneen ak ñoom Clédor Sène ñoom nag nee nañu trop c'est trop Macky Sall mi xamul yeela caaxaan faaxi jamono ji nag ñoom li ñu gisal mooy askanu Sénégal ñoo war a jóg daal di taxaw résistance fippu maanaam jàkkaarloo ak Macky Sall ki nga xam ne nag mooy Dame Mbodj nee na Sénégal ci boppam moo munta nekk am réewum dictature te ñun Sénégal ci boppam fu lu ñu ab dictateur fu ñu ab buur ab président la ñu fal Macky Sall nag ci boppam moo bëgg soppar koo nangoo kàddu dàmbooj la damay nettali yéen a kaay gii di réew mi quotidien xëy di ñu nettali lu garaaw a garaaw lu doy waar loo xam ne Arabie saoudite fa la xewe woona ndax sa biir Arabie saoudite dafa am benn sénégalais boo xam ne lu toll si ñaari at yoo xam ne doon na violé benn xale bu jigéen bu am fukki at ak benn yaayu xale bu jigéen bi daal di jël ay kaakaam jóge Arabie saoudite ñëw ci Sénégal daal di ko fi porte plainte atte nañ ko niki démb tëj nañu ko lu toll ci fukki ati kaso yéen a kaay gii di li quotidien nee na guerre gi ji mel na tulleeg màlle ci Afrique ndax ci frontière yi ñi nga xam agent yi ñu dénk frontières yi dañuy dundee ger dañuy lekk ger dañu leen di ger ndax lu toll si ñaar fukk ak benn ci ay milliards yoo xam ne xayma nañ ko ne jot nañ ko ci at mi yéenekaay gi di Stades ci Ligue des ak match yi nga xam ne jot naa am niki démb yéenekaay gi nee na Juventus de Turin niki démb Porto defal na ko bagage ñaari bal ci benn yéenekaay gi ne na joueur Dortmund bii di na démb moo wane boppam bu baax a baax ci match bi nga xam ne moo doon dox diggante Séville ak Dortmund Dortmund moo ko def ñetti bal ci ñaara yéenekaay gi nag nee na ginnaaw bi Messi gënee di am ay jafe ak